bu ñu bañatoon a guddal darañ ci ñëw faram fàcce ko gën koo leeral waaye daal sëñ Tuubaa mi ngi def tawasul ci yonent yàlla Iisaa neew bi jaahi di ñaan ci darajay yonent yàlla Iisaa ay point yu bari alxuraan tudd na ko ci moom bégle gim bégle ak gane àddinaam is qaalatil malaaikatu yaa maryamu inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasiihu Iisaa ibnu maryama wajihan fi dunya wala xatamal muqarrabina ku am daraja la ku am personnalité àddina àllaaxira bokk ci ñuy jege yàlla yi ñaareel ba yàlla jox gim ko jox albaynaat dëgëre ko ruuxul qudsi loolu alxuraan indi na ko mafatihal bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihal bisri wal amni wal janna fi salaati wa tasliimi ala muqiimi bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama haadihi tuhfatul mutadarriin fi tawassuli bi asmaa'il mufaddaliin wa kun bi muusaa wa bi jaayi iisaa waaqiyani dunyaa wa uxraa buusaa bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina ngi tàmbali samay kàddu ci sun borom di wax bismillahi rahmaani sant yàlla di julli ci ab yonentam ba faw ak ñoñam ak i ginnaaw loolu maa ngi nuyu mbokk yëpp nuyoob islaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am mbégte del siwaat ak yéen ci sunu juróom-ñaareelu jataay ci tuxfatul mutadarrin fi tawassuli bi asmail mufaddalin xaside googu nga xam ne sëñ benn ko way ci bahru rajas te wayee ko tuuba muy xaside tawassul sëriñ bi di ci ñaan di am ñu muy def tawasul ci ñoom te ñuy ay kuréel te kuréel gam te njëkk a tudd mooy ulul mi di juróom ci yorante yi ëpp pëseef ëpp dogo ci yorante wi gën a xejj di yorant yi gën ci ñoom la sëñ bi tàmbalee def tawasul ci ñoom su jeexee dana ñëw ci kuréel bi ci topp noonu la ko toppee ba toxfatul mutadarrihina jeex nga xam ne xasida tawassul la hada wa inni li yawma du tawassuli bi asma'i sawi tafadduli kon sëñ Tuubaa dana yëgal ne bis ni ki tey bi may defar xasida tuxfatu gii maa ngi def tawassul ci turu boroom gëneel yi kon ñooñu ñooy ñi gën ci nit ñi mu tàmbalee ci ñi ci gën nag te mooy ulul xasmi waxoon naa leen ne xasida gi juróom ñetti fukki bayit la ak juróom ñett cinquante huit tolloog turu yàlla wii di Muhyi moo tax Tuhfatu day dundal ndax secret Muhyi bi ci nekk waxoon naa ne limub ay baatam mooy quatre baat ñeenti téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñett loolu mooy turu yàlla wi di fattaaxu fattaahu valeur numéro gam adadu nafseem mooy 489 ñeenti araf la 489 plus 4 moo lay jox 493 kon gis nga xasit la goog ouverture ubbeeku da cee nekk ci limu baat yi waxoon naa la ne ay xarafam euh, quatre deux mille deux cent la ñaari junni ak ñaar téeméeri araf ak ñeent moo ci nekk mhm. waxoon naa ne loola mën ngaa def istixraaj bi ci boo jëlee limu mu bay di muy cinquante huit nga multiplier ko par trente huit muy mm, tur yàlla wi di haad ak xayu haad yi ñaar fukk la xayu dix huit la moo lay jox trente huit kon 38 yooyu boo ko multiplier ci limu bayit di moo lay jox 2204 di limu araf yi kon gis nga euh, xasida gi dafa riche ci wàll yëpp ci balaaxa ci bayaan ci naawu ci arut waaye ci wàllu euh, adat def ci riche lool tey nag la ma la waxoon ca loolu dinaa la ci yokkal ne boo jëlee limub cinquante huit muy limu bayit di nga jël quatre cent quatre vingt treize muy limu baat yi nga jël deux mille deux cent quatre muy limu xaraf yi moo lay jox deux mille sept cent cinquante cinq ñaari junni juróom-ñaar téeméer juróom fukk ak juróom loolu nag boo ko xoolee multiplier wu dix neuf la te xam nga dix neuf dafa am solo de bismillahi rahmaani rahim dix araf la. xasbana allahu wa nihmal wakil moom la mhm. euh, dix-neuf moo toroog tur yàlla wi di waaxid dix-neuf boo ko multiplier par quarante cent quarante-cinq di muhayminu moo la jox deux mille sept cent cinquante-cinq tolloog cinquante-huit yi li mu baat yi yi li mu bëy di tolloog quatre cent quatre-vingt-treize yi mu baat yi tolloog deux mille deux cent quatre yi li mu araf yi boo leen boole mu jox la deux mille sept cent cinquante-cinq mooy dix-neuf fois cent quarante-cinq wax naa la tamit deux mille deux cent quatre mën naa génne ci ñaari turu yàlla yii di xaribu mujibu seen valeur numéro trois cent soixante sept la boo ko multiplier part six moo la jox deux mille deux cent deux nga yokk ci baatu xarib baatu mujibu ñaar la boo ci yokkee ñaar yooyu moo lay jox deux mille deux cent quatre li mu paar fii mhm. allahu akbar ba tey deux mille sept cent yi nga xam ne soo boolee li mu tur yi euh, ba boolee li mu bayit yi li mu euh, baat yi li mu araf yi moom la lay jox mën naa am beneen istixraaj ci boo boolee li mu bayit yi ak li mu baat yi cinquante huit plus quatre cent quatre-vingt-treize da jox cinq cent cinquante et te xam ngeen 551 bi mbir la moo tolloog xamidu fattaahu ñaari tur yooyu wala bu la neexee sax mhm. nga jël 367 plus 184 moo la jox 551 184 nag mooy tur yàlla wi di moin 170 plus 14 wahabu 184 ba tey bu la neexee. mooy cent la ilaha illa plus xayyu cent soixante six plus dix huit comme neex nga xool ko wala cent quatre vingt quatre sax bu la neexee bi gën a gàtt mooy ñaari muhammadu la quatre vingt douze fois di ñeenti waliyu mhm. di ñeenti waliyu kon mooy cent quatre vingt quatre kon gis nga cinq cent cinquante et un kon mi ngi noonu 367 plus cent bi ma la wax léegi mooy ñaari Mahamadou wala ñeenti waliyu wala laa ilaha illa hayyu wala muhiinu wahaabu 551 yooyu nga xam ne mooy Hamidou Fattahu 551 bii te 551 moo jàpp limu mu baat yi ak li mu yi 58 plus 493 moo la jox 551 gis nga 551 bi boo ko multiplier par 5 moo la jox 2755 bi nga xam ne mooy limu baat yi limu xaraf yi limu bay di gis nga mbir yi ni ñuy duggante ci tux fa léppam nag nii la mel dafa am cohérence sëñ Tuubaa li muy def dafa am cohérence kon ñu ngi ci wakun bi Moussa. wa bi jaahi xiisa waaqiyani dunya wa oxra buusa bayit woowu a nekkoon jëloon nañ kon bi Moussa kon dañuy jël tey bi jaaxi xiisa waxoon naa la ne xasida gi sëñ bi la ci def ulul xasmi ci ay kuréel kuréel ga ci njëkk mooy ulul xasmi tudd nañ ñett tudd na noohin tudd na ibrahim alayhimu tudd na yent yàlla Moussa tey nag mu ngi tudd yent yàlla Xiisa di def tawasul ci moom moo tax mu ne ubbi jaaxi Xiisa kon maa ngi ñaan ci daraja yent yàlla Xiisa kon ku daan la tawasul daa araam yow murit bi ah bul ko bàyyi xel xamal ne Serigne Touba mi nga xam ne xam na lu dagan xam lu araam sës rëkk ci yonante bi te dundam gi yëpp jeexal ko ci sunu si yonante bi sallallahu alayhi wa mi ngi def tawasul Iisa ibnu Maryam di yonante bi yàlla bokk ci ulul azmi min ar-rusuli yàlla yónni ko ngir moo mat bani leen téere bu set bu sell muy injiil yonent yàlla Iisa alayhi salaam alxuraan tudd ko lu bare bare moom xiisa war na mat fanweer ak lu topp mhm. alxuraan dana tudd Isa mi nga xam ne mooy doomi Mariama bintu Imraan ni mu gane àddina ak xar baax ya ca am ak ne ko ndeyam ëmbee te fekk booba mi ngi nekk ab jàng te loolu benn doomu aadama jëflawuntut ak moom xanaa ci ndigal lu jóge ci sunu borom yàlla jox ko isaa la yàlla isaa yàlla joxoon ko pouvoir kattan ci mën a def lenn ci ay xar baax dekkal ko faatu fëral ku am ndoxum siti ak ko lu lépp mu doon ko def bi idnillah mhm. alxuraan ñëw na ci ay jaar jaaram wane ne kenn pàddu ko kenn reyu ko yàlla moo koy yëkkati ci moom mhm. loolu yëpp alquran ñëw na ci mhm. doonoon yàlla yonent bu yàlla yónni ci bani israil ngir mu daganal leen lenn lañ araamaloon ñi ñuy wax alxawaari yoona di genn kuréel ci bani israil gëm ko am geneen kuréel ci beneen israil gu ko weddi yàlla jox ko ay kimtaan mu wax ak nit ñi te booba ma ngay nàmp di daan dundal ko ko faatu hmm, daan faj feebar yu bare bare daan defar ab picc ci ban bu ko ëppee mu nekk picc dinaaw hmm. alxuraan tudd xisaam alquran tudd xisaam tudd ay jaar-jaaram moom yonent yàlla Isaa alayhi salaam mhm. dale ko ci ak gane àddinaam ak bayaam nekkee eh, ci ron kilifteefu yonent yàlla Sakariya mi nga xam ne mooy bàyyi Yaxya alxuraan tudd na ëmmub Mariama bi ëmbee Xiisa ak la ca xew ak na ko sunu borom neen na ko sunu borom tànnee ci mbindéef yi ngir yont yàlla Xiisa mën a jaar ci moom te boobu muy jànq ni Mariama gisee Jibril ngir di ko bégal ne dana am doom dana am doom ñu seet ñu tudd Xiisa dana nekk yonent yàlla dana wàcce ci euh, ci moom injiil mu xibaar ko ne dana wax ak moom te bob mi ngi nekk gone dana wax te bi nga nekk gone dara bokk ci assaalihin bi Mariama déggee lii laaj Jibril ne waaw naka laay ëmbee naka lay amee doom te jaxasuma ak góor ane yëkkoon ni wala dun walam yem sa si basarum sunu borom jibril na ko kadalika allahu yaxluqu ma yasha isa qada amran fa innama yaqul lahu kun fa yakun nga xam ne alquran dafa tudd ne xiisa dañ ko bind bi amrillah sunu borom di nuróoleeg ak mbindu yonte yàlla aadama mi nga xam ne sunu borom bind na ko te amul ñaari waajur waaye loolee ca kun fa yakun la amee kon ki bind aadama amul ndey baay mën naa bind eh, yant yàlla xisaab mu am ndey te du am baay mhm. loolu yëpp moo poussé yant yàlla Zakaria bi mu gisee Mariama sun borom di ko defal yenn xéwal muy am fruit yoo xam ne nii eh, fruit yoo xam ne nii ci nawet mu di ko am ci noor fruit yoo xam ne nii nawet lay am mu di ko am ci noor fruit yu am ci noor mu di ko am ci nawet. loolu moo poussé yontu yàlla Sakariya mag la woon amutoon doom ba mu ñaan yàlla yàlla may ko doom mhm. loolu yëpp alxuraan ñëw na ci gane ak àddina yontu yàlla Xiisa ak nam digalee Mariama mu gësam ngarabu tànnama ga ay tànnama rot ci mu lekk mu mu lekk ca فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وانظري إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي gii Sëñ Tuubaa jër na ak xasiida defar ko ci mooy fus si bi sarfil xasanaat defar ci xasiida gu rafet di ci tagg yont yàlla Iisaa ak ndeyam xasiida googu sëñ bi mi ko defaree ca njaareem xisa bu gudd la su ma bañutoon feeñal mbóot su ma bañutoon a feeñal mbóot danaa ci ñëw istuwaaru xasida googu fa kulli wasra bi waxarri ay na lu xóotu xóot la kon alxuraan ñëw na ci yooyu yëpp ni yont yàlla isaa waxee ci ba muy ndaw wane ne moom ab yonent la qaala inni abdullahi aataani alkitaaba wa jacalani nabiyan wa jacalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bisalaati wa sakaati ma dumtu ayyan wa barram bi walidati walam yajcalni jabbaaran saqiya wassalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma wa yowma ubxasu xayya alxuraan ñëw na ci ni ko yàlla joxe risaale bi ni mu wàcce ci moom téere bi injiil yooyu yëpp alxuraan ñëw na ci nasala alayka alkitab bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi wa antara tawrata wal injil tudd na alxawaariyuuna falammaa ahassa Iisaa minhumul kufra qaala man ansaari ilallaahi qaala alxawaariyuuna mhm. ak ni xawaariyuuna sàkk woon ci yonent Yàlla Musaa mu wàcce benn plateau benn ndab benn palaato boo xam ne day jóge ci asamaan si mhm. alxuraan tudd na ni ñu ko yëkkatee. nga xam ne alxuraan nee na euh, wa maa qataluhu wa maa salabuhu walakin subbiha lahum bàgg ci bal rafaahu allahu ilayhi wa kaana allahu azizan hakima kon loolu yëpp euh, alxuraan ñëw na ci kon daal alxuraan tudd na lu bari bari ci istuwaaru yonent yàlla Isa alayhi salaam bu ñu bañutoon a guddal darañ ci ñëw faram fàcce ko gën koo leeral waaye daal sëñ Tuubaa mi ngi def tawasul ci yonent yàlla Iisaa neew bi jaahi Iisaa di ñaan ci darajay yonent yàlla Iisaa ay point yu bari alxuraan tudd na ko ci moom bégle gim bégle ak gane àddinaam is qaalat al malaaikatu yaa maryamu inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasiihu iisaa ibnu maryama wajihan fi dunia wala xatami muqarrabina ku am daraja la ku am personnalité àddina ak àllaaxira bokk ci ñuy jege yàlla yi ñaareel ba yàlla jox gim ko jox albaynaat dëgërale ko ruuxul qudsi loolu alxuraan indi na ko ñetteel ba jox gi ko yàlla jox alkitaab wal xikma ak yónni gim ko yónni ci bani israel yuallimuhul kitaab wal xikmata wa tawrata wal injila wa rasulan ila bani israila ak misaax bi mu jël ci moom wa isa axas naa min annabiyina misaaxu min qawmin nuuhin wa Mhm. ak ay kimtaan kawteef yu bari eh, yim def ci nit ñi wa yuallimuhul kitaaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa rasul ila bani israila anni qad jihtukum bi ayatin min rabbikum anni akhlaqu lakum min tin ka ayati tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi isnillahi wa ubri'u al akmaha wal abrasa wa uhil mawta bi isnillahi wa nabbikum ma taakulun ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dhalika la ayatin lakum in kuntum mu'minina yu bare bare la ak alxuraan wane na xiisa jaamub yàlla la ndawam la yoo yëpp alxuraan indi na ko lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabuna ma almasih ibnu maryama illa rasulun qad xalat min qablihi rusulu ummuhu siddiqatun mhm. ak dàq wax gi ñu wax ne xiisa ibnu maryama euh, ibnullahi loolu alxuraan ni itam ñëw na di ko daq mhm. ak yeneen yu bare bare mhm. kon yàlla yónni gi ko yónni ci bani Israël ngir mu dëggal tawreet ak ngir mu bëgg la risaala ak bi wala na yonent bi dana ñëw wa is qaala Iisaa bnu Maryam yaa bani Israa'iila inni rasuulullah ilaykum musaddiqan limaa bayna yaday mina tawreeti wa bi rasuulin yaatii min ba'dii ismuhu Ahmadu falammaa jaa'ahum bil bayyinaati qaaluu haazaa sihrun mubiin ak war gëm ko ak gëm lim indi moom yonent Yàlla Iisaa ni ko eh, ni mu waree alxuraan na ko ci. qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa isaqa wa yaqub ak yàlla de waane euh, gëmuk xawaari yoon yi ci xisaab nu mariama ak wàcc gi mu wàcc euh, ci moom hmm. ak rëbb gëm rëbb ñu weddi woon yàlla ci bani israel ci làmmiñam ak yëkkati ko ko yàlla yëkkati ak wane kenn pàndalu ko kenn reyu ko loolu yëpp alquran ñëw na ci dangay fekk daal histoire yontu yàlla xiisa mu fees dool mu fees dell yaatu lool mm, ci biir alquran nga xam ne alquran tudd na ko ci barab yu bare bare bare mm-hmm. tudd na ay turam yu bare bare bare bare bare Mm-hmm. Mm-hmm. tàmbalee ko ci bi malaaka yi di bëggal yaayam nekkoon danga am doom ju góor yàlla dana ko bind ñu dañ ko tuddee masif no xis marima dana nekk ko am personnalité àddina ak àllaaxira dana nekk euh, ab yonent ci banni Israil mm-hmm. yàlla tudd na ko ci alxuraan lu mat fanweeri yoon ak juróom moom yonent yàlla Isaa tudd na tudd ko masiixu xiisab nu mariama ñetti yoon ci alxuraan su ba bañu toon a guddal danaa indi ñett yëpp tudd na ko xiisu nu Mariama tout te indiwul Masiix moom itam fukki yoon ak ñett mhm. tudd na ko Masiix ibnu Mariama rek te indiwul xiisab ji moom itam mm, juróomi yoon ñeenti yoon yëpp ci suratul Maayda ak benn yoon ci suratul Tawba tudd na ko Masiix dong rek mhm. moom itam ci benn barab ci suratul Nisaa Euh, ñëw na ci ñetti yoon ci alxuraan masin rek euh, benn yoon ci surat nisaa benn yoon ci surat benn yoon ci surat tawba lan yas lay lan yastankifa almasihum an yakuna abdan lillahi wala almalaikatul muxarraboon tudde na ko ibnu mariama tuukuur ci ñaari barab suratul muminuun ak suratul soxrof wa jaalna ibna mariama wa ummuhu ayatan ak walama durib nu mar walama durib nu mariama masalan isaa xawma ko minhu yasuddoon kon gis nga alxuraan indi na lu bare bare ci yont yàlla isaa su ma bañutoon a guddal mm, dana ànd ak yow ci lu bare bare bari ci euh, yont yàlla isaa waaye fii doy naa yem alxuraan wax na ci lu bare bare histoire mit lu yéeme la sëñ tubaa ci moom la def tawasul nag kon sëñ tubaa nee na yàlla maa ngi lay nag ma nekkal wa kon bi Moussa yàlla nag ma nekkal ci barkeb Moussa ak boobu jaaxisa ak ci daraja xisaa waaqi yéeni duniyaa waxraa Moussa kon àddina laxraa nag ma fegal al buxsa buxsa ñàkk coona tartar xat-xat mbugal loolu yëpp ci buxsa la bokk allahu akbar sëñ Tuubaa ni muy ñaanee euh, dafa yéeme gis nga boo xoolee rabbi bi nuuhin ibrahima lixfir sunu bi wappi ni rajima gis nga sëñ bi ñaan na yàlla jéggal ko bàkkaaram waaye ñaan en même temps li waral bàkkaar suñ borom dox fegal ko ko te muy arrajim nga xam ne bàkkaar bi doomu aadama njëkk a def moom moo ko ko ca xital moo ko defal wiswaas ba mu lekk garab ga ko suñ borom tere woon yàlla fegal ko kon lii waral bàkkaar mooy ibliis waaye nag li bàkkaar di jur te mooy ay jafe-jafe ay xat-xat suñ borom fegal ko kon ndax gis ngeen sëñ bi ni muy ñaanee yàlla jégal ko bàkkaaram fegal ko kii waral bàkkaar résultat yooyu juddoo ci bàkkaar te mooy albux suñ borom fegal ko ko xam ngeen bàkkaar dafay am njeexital ci société bi dafay am njeexital ci ind individu bi mhm. day tax day indi ñàkk day indi eh, ay xat-xat ak ay jafe-jafe indi ay balaa indi ay musiba yooyu yëpp bàkkaar da koy indi te lépp ci albuxsa la bokk kon gis ngeen sëriñ bi ni muy ñaanee ci biir Tuhfa waaye ni muy defee tawasul ci gaa yu baax yi euh, te njëkkee ko ci ulul mi kon gis ngeen sëriñ bi boole na ñaari yonant muy Nuux ak Ibrahima ci bayit ñaan fa ñaane ñaari mbir waaye tudd yont yàlla Muusa ak Isaa ci beneen bayit ñaan yàlla fegal ko àddina ak àllaaxira bu sax bu mu gis benn jafe-jafe bu mu gis benn xat-xat benn mbugal àddina ak àllaaxira kon mu ngi noonu sëñ bi nag bi muy tudd ñi muy tudd ci tuxfa ci uurul xas mi da ko def ci ni ñu ñëwee jamono ci ñi ñu gën a yàggee yont yàlla noohin mooy ki njëkk ci ñoom ñii ginnaaw gi yonte yàlla Ibrahima topp ci ginaaw gi yonte yàlla Moussa topp ci ginnaaw gi yont yàlla Isa topp ci moo tax sëriñ bi indee ko noonu mhm. kon téere bi daal mi ngi noonu di Tuhfatul Mutadallihina am na solo lool tayit sirru bu wér da cee moo tax lu waay di wut ci tux fatu te amoo ko xalaatal sa bopp waaye caabi passe partout la wahab liman bihi yunaaji maa yurum foofa la wax mën a yem yàlla daal képp kuy diyaale yow ci way wii di tox fatal musu dara hiin nanga ko may la muy sàkku kon sëñ bi ñaanal na la intervention ba noppi kon nag loo amul ci yow la loo amul ci yow la kon tox foto mi ngi noonu dees na ci lugg jaan dees na ci euh, dindi tële mhm. koñ takk xala laa bëgg a wax koñ takk xala précisément dees na ci lugg ku jiit fet tox foto mos darin sax day defar wëli wu yàqu kon mbokk yi mën naa yem fii ba jataay bi di ñëw ñu wëy nag ak yéen ci e, ki nga xam ni mooy juróomeelu e, ci ulul mi te sëñ bi beral ko boppam julli ci ci moom julli waale ci ñeent ñi mu tuddoon ba noppi nag ñaan fa ñetti mbir yu am solo kon jataay bi di ñëw foofa lañ jëm waaye daal tuxfatu daal mu ngi noonu dafa riis ci wàll gépp ca arab ca balaaxa ba ca ca ca wàllu adat ba ni mu dugalantee euh, dafa yéeme ci uslo bi ko sëñ bi defee yéeme ci ni ko sëñ bi tëggee yàlla nañu ko yàlla fayal te sekkarab tuxfatul musdarihiina yàlla na ko yàlla def ci nun ak mboolem jullit yëpp te sunu aju yëpp sunu borom fajal ñu ko zahiran wa baatinan ci barkeb tuxfatul musdarihiin ak sëriñ Tuubaa ma ko def ak barkeb ñam tudd ci biir yàlla na yàlla faj ajo yëpp yàlla yërëm mboolem jullit yi ci biir suuf yëpp ku ca amoon xéewal na yàlla ful say xéewal ku ci nekkoon ci xat-xat na la yàlla génn ci xat-xat te yóbbu la ci xéewal yoo xam ne nii xel mënu ko takk làmmiñ nu ko tudd mboolem jullit bu ne ci kaw suuf te am aajo yàlla faj sa ajoo ci barke Tuhfatul Muhtarina ku am jafe-jafe yàlla faj sa jafe-jafe mboolem jullit ñëpp kenn ku ne la nga bëgg yaa ko xam sunu borom defal la ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa